gaawu siin la dëggal mooy sa baay biram jigéen moo jur sa yaay yow gar mi nga séeréel pir baa ngi nii juuxa ñoxo mbaay nee naa la li ñu la bëgg ngi lay de neexu ñoo ràññee ndax leen jéem a nag ak noom àdduna dafa yaatu wooy ndaanaan baa ngi nii sànnan fay mooy sa baam te ndigal Juuf moo jur saay Sénégal déglu leen ndaanaan baa ngi nii dox ngi nii namoon naa la Juuf a ñoo baay borom ji xaaw si <laughs> ah, moo tax bi may dugg si dama ne ñàkkuloo jam tanewu la gàcce sa néegu yaay di mbóol mhm. wu jari jooy moo xam le muy mhm. kul xasan na to wakka su ko baaraam jotu ko Juuf bul ma miir ba fàtte ma nag kolleere ginnaaw lay fete lii daal mooy nuyoo ba juuf juuf mbay juuf na moon daale taari kalla mbay ndili laay xaarantu yaay taari kalla alhamdulilah non intéressant mhm. gis nga ba ngay dugg si mhm. espagnol yi dafa am lu ñuy wax waaw espagnol yi mbay mhm. euh, dañuy naan cantar es natural pero saber cantar es arte maanaam maanaam euh, chanter c'est naturel mais savoir chanter c'est de l'art. savoir chanter c'est de l'art. xam nga way neex na mais xam li ngay way. moo gën waaw dafay dàq. moo gën te yow Mbaye da nga maa xam. <laughs> xam nga. waaw dama ne bëri ne la takkuloo jom. Mhm. taneewu la gàcce sa néegu yaay di mboolu. dégg nga loolu. bu jëli jooy moo xam la muy jooy kol xasanata wate suku baaram jotu ka bul ma men ju ba fàtte ba kolere ginnaaw lay féete kon kon man dama dama laal jaxaaw laal laal laal kajoor laal yow bete bete nga mhm. laal nga jaxaaw dangaa laal kajoor laal Chine mhm. yow bete bete nga mhm. loolooy confirmation bete bete nga nee Sangman Faye mooy sa maam de bul fàtte loolu. Birame mhm. Jigéen moo jur sa ñaari waajur maa leen xam. Mhm. bu fekkee da dem Kajoor ci dëkkale. waaw dégg nga maam Ngóor Ngóor Diouf. Mhm. mooy sa menn mennu yaay. waaw parce que bu ñuy tàgg. dañu naan Diouf ñu ko bàyyi Samba borom gaañ. borom gaaña ah? borom néegu carton. ah ñu ne Lamba Demba Kondour waa Soutoulou Ndofène Ndundum Mbalakkeen. mais gis nga amoon naa benn maam. waaw Mbaye dégg naa boo ko mosoon a tooñ. waaw ah. day noppi. waaw di leen dajale ba ngeen mag douzaine fukk ak ñaar waaw mu boole leen dugg kooku kan la Salmon Faye la ah. Salmon Faye mhm. hmm. est-ce que xam nga Salmon Faye bu baax ndeysaan bàmmeelam ba léegi boo ko demee bu jaxaw ba siin mhm. fa nu ko denc ca mhm. bàmmeel xabru ba njongolor njongolor tàtta gi nag ndox xam nga ba ñëw ba ndongolor da ngay dem tàtta gi kër man tey jur da ngay wàcc jël sàll mu dugal la biir tàtta gi boo fa demee ca biir lool loog ca bàmmeelam sëg ya boo fa demee dafa sax ay kaani xobi kaani yi dañoo xas boo ci wittee bu la neexee dëbb def kaani ba jël moo tax démb neexoon xam nga lan moo indi eh, loolu sax kaani mm-hmm. mm-hmm. wex gu mu wexoon waaw kenn musu ko ñi ne fii jaxaw <laughs> bu ñu wax géwél li mooy tax man damay man damay may damay jàmm naa waaw parce que lii c'est des cours magistrales yoo xam ne Euh, man ni may def ma jàll rek. dëgg la dëgg la générale may xabtal di ma yokk. Euh, léegi nag dafa amoon benn problème bu ma fi indi. Mhm. waaw damaa bëggoon nga abal ma wala nga may ma sama waaw war a kos waaw mais xam nga mbaay comme ni nga ko waaw man maa doon commando Fett Diouf. waaw si si ba taxna man Mbaye yow man ni je te vois à l'aise ah, ni ngay solo grand boubou yi ah wengal sa mbaxane. waaw waaw waaw je te vois à l'aise ay ay ay veste costume rek lay solo ay damay sol ay kii de ah. damay sol costume damay sol costume de damay sol costume damay sol ay mocassins. waaw hmm? ah, waaw des fois du ma xamé sax. waaw hmm. ah, waaw dama koy faral di dugg. ok légui cos bi yow sa kii sa taille ñaata la ñaata koy sol. Hmm, kii douze. pardon pointeur douze. <laughs> elle douze.

di dugg xam nga tànk aussi na gudd yaatu ma gën a yaatu la. ah waaye Diouf nag yow tamit yow maa xoolal lu ma jot ah, dinaa xool si ay kii dinaa xool dinaa xool euh, su may def sama prochain commande wala su may changé sama garde-robe dinaa la sóoraale dinaa la préparer ay affaire non t'inquiète vraiment Mbaye euh, tu es ma si sama maam yi xam nga buur siin amoo fa jox ak kii ak kii ma di ma sori ma paas ma jox ma foofu dara ma dem. ndax bi may ñëw dox dëgg yàlla dama xaw a dox xaaral ma xool comme que mënoo maa jox accessoire moom léegi ma xoolal ma foofu daal pratiquement air numérique lañ nekk du ma doxantoo liquide xaaral ma xool sama compte air lu ñu ne euh, air numérique presque sama xaalis yëpp sama téléphone laa koy lu ñu euh, ne bon lii moom du des bareetul weccet léegi xam nañu def hmm. bàyyi naa defal transfert léegi naa defal envoi léegi yoruma kii ban yoruma tiktok kii laa yor bamba fépp yi rek la waaw kenn kenn naa si dugal xaalis léegi du sa 022 bi ah waaye yoruma kii di ba naa si dugal xaalis mbaay ba sama maam kii Diouf baal ma ñëw dem waaye say maam moom déem leen a resal sa waay dama tàng lool dégg nga dégg suñu maam kau tàppet rek lañu mën a wax ni man maa ko def sax déet mbaay yow li ma wax léegi si salmon mais mbaay kii Kumba Ndofène sama maam Kumba mbaay mais nag moom jàmbaar la ba géwél moom géwélu démb ak yu tey ba tey boobu mais il est intéressant tamit